encore salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéenay suivre Pod de Culture ci seen plateforme EGTV comme ni ñu koy defee plateau la boo xam ne dafay def ay débat yu bëri yoo xam ne sans rapport avec les cultures urbaines le hip-hop le rap d'une manière particulière euh, tey nag euh, ñu war a waxtaanee euh, thème boo xam ne c'est un peu complexe mais c'est c'est un thème boo xam ne bu am njariñ la boo xam ne bu bu ñu war a waxtaanee la en tant que tel bëriwul plateau yu ñu koy waxtaanee parce que ñu bëri ñemewuñu ko modèle économique bu hip hop wala culture urbaine d'une manière générale parce que bu ñuy wax rap ñuy wax musique ñuy wax rappeur bi xam nga dañuy dañuy wax ci déglu bi mais déglu bi dafa am leneen lu nekk ci ginnaaw muy wutum koppar ci pays bi ñuy xam ne Sénégal bon on parle de pays pauvre mais quand même ñi ngi gis ni actuellement ci époque bi depuis 2017 2018 ba ci jamono ji ñu nekk les artistes se concentrent plus sur l'aspect économique euh, parfois même sax dafay dem ba ñu naan mi ngi laal aspect artistique bi mais quand même ce n'est que de bonne guerre tey nag ñu am fii euh, un invité particulier koo xam ne entrepreneur euh, des cultures urbaines la di Bamba bu jéggi raay di ko nuyu bu baax xam naa après nañ ko bàyyi mu présenté wu les autres gars je vais pas vous parce que ñoom ci ay habitués lañ xam nga lu ñu ay invité chroniqueur Mouhamad Malomar ak Tam Beat donc ñu war a waxtaan ci euh, business model bu euh, hip hop euh, galsen wala bokk euh, bu cultures urbaines d'une manière générale Bamba ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw mais gars maa ngi lay fay di nuyu gars yi toog ci plateau bi et di leen féliciter ah. di nuyuwaale gars yi gérer technique bi fële. naan uh-huh. leen en tout cas je salue l'initiative lii moom culture urbaine soxla nañ ko quoi et donc naan leen un grand big up en tout cas ñu ngi seen gannaaw ñu ngi support à 100 pour cent. jaajëf jaajëf merci moom aussi comme ni nga ko waxee rek di ko souhaiter bienvenue ci Pod de Culture tey dafa mel ni foo bi mat na. donc Pod de Culture bi mi ngi door a ñëw donc euh, ñu waxtaan ci euh, business économique wala boog euh, modèle économique bu bu culture urbaine d'abord on parle d'industrialisation Grand industrialisation ci milieu culture urbaine réellement. ban ban dégg-dégg nga ci am ak réellement qu'est-ce que ça signifie quand on parle d'industrialisation bon bon quand su su suñu suñu adapté le terme ci hip hop hip hop mm. bon bu ñu jëlee euh, hip hop gaasem naan dañ ko bëgg industrialiser déjà il faut qu'il y euh, lu formel lu formel mooy par exemple que les les artistes s'organisent ñu am des papiers clairs et tout et cetera ñu fii nii on a la malchance amuñu des majors comme par exemple ñoo xam ne ils s'occupent de la distribution et comme benn label bu mag a mag comme ba jëlee ñoom Sony wala nga jël par exemple ñoom Interscope wala ñu Aftermath genre ñun amuñu yooyu noonu fii quoi donc dañuy demale suñu proprement et cetera donc loolu noonu mun na doon blocus mais bon mun nañ mun nañ adopté par rapport au contexte sénégalais mooy euh, par exemple ñu ne suñu artistes yi nañuy fexe bu ñu génnee temps. temps de vente et cetera dina permettre ñoom ñu am euh, àgg ci benn niveau bu mooy waral ay certification yu demee noonu tamit benn mooy euh, par rapport ak yenn kii yi mu tuddee comme les événements tout ce qui est événementiel tout les organisations et tout ñu koy defee. mu am processus process yoo xam ne nii da nga koy respecté pour def ko da nga am fu nga jaar ak yooyu no donte moo ngi am sax mais moom mu doon lu gën a officiel yoo xam ne ñëpp dinañ ci am wàll day day type dañuy teg des des des des kii nutriti des garde-fous yoo xam ne dañ naan. lii nii lañ koy defee lii nii lañ koy defee nii lañ koy defee parce que dara boo boo ko cernewul rek day doon yaa ma neex wala nu ma neexee laa koy defee te boobaa du am contrôle soo amul contrôle doo mun a doo mun a def évaluation bi ba du joxe ay chiffres et tout. Mm-hmm. te loolu bu amul rek on peut pas franchement parler d'industrie d'industrie quoi. su ma la déggee dafay mel ni benn chaîne boo xam ne maillon bu nekk dafa am rôle boo xam ne moom lay jouer pour loolu mën a am kañ la ñuy dem ba ñu toog ñu ne ah là on a une industrie hip-hop kañ la mën a reconnaître loolu noonu quoi ne lii vraiment lii industrie hip ci anarchie noonu euh, waaw asalaamaaleykum maa ngi kontaan trop di toog fii ak grand bi mit la woon quoi. dañ koy dégg souvent Bamba Jéegi Raay man moom ma ne. mooy dégg studio yi da toog Bamba Jéegi Raay mais xaw ma ko woon ni mais eh, ci trop tey ma ko. en fait en parlant de business model da nga ne kañ la ñuy nangu wala kañ lañuy dem ba reconnaître ni bon je pense dafa simple ah industrie chaîne la mooy yaa ko wax maillon yi nekk ci chaîne bi ñii nekk ci chaîne bi ñu gis ci seen bopp bu ñu demee ba nga xam ne ñooñu ñoo nekk ci yëpp ñi nga xam ne ñoo ŋànk hip hop bi je parle pas de, de, de seulement l'artiste mais ba nga xam ne kii gën a ndaw ci ci ci hip hop bi sax ki nga xam ne moom mooy sax photo mu ngi ciy gis boppam xam nga doonte kii photo gënul ndaw ci hip hop bi quoi waaw ah, buñ ñëwee ba nga xam ne ñëpp ñu ngi ciy gis seen bopp en ce dinañ nangu ni lii de industrie la boo xoolee nag hip hop Galsen tollooguñu foofu souvent on a on a on a beaucoup de blocage mais tamit loolu dama lay wax c'est culturel ñun on peur du changement ñun boo xoolee sax lan moo tax ñun ba ci ba ci ba ci ni ñuy doxalee suñu réew bugguñu am yenn njiit yoo xam ne dañoo dañoo def nii c'est parce que ñun li fi nekk dañoo dem ba dañ ko dañ ko tàmm ba nga xam ne dañuy ragal on a peur que loolu bu changé duñ ci gis suñu bopp. on est pas à l'aise dans ça on même pas à l'aise dans ça quoi ñi nga xam ne ñoom ñu ngi ciy gis seen bopp en fait dafa am benn égoïsme bu ci nekk tamit. parce que am na ñi nga xam ne ils ne veulent pas que les léegi nag ñeneen yi c'est pas qu'ils ne veulent pas que ça change mais ñeneen ñi xamuñu xam nga yenn saa yi day am benn ignorance bu ci nekk ñeneen ñi xamuñu lan la leen hip hop bi mën a indil ils savent ñu ngi ci mais gëmuñu sax defuñ ko liggéey gëmuñu ni lii war naa mën a hip bii ma nekk war naa ci mën a jógee du point A dem point B la plupart du temps xoolal rek da koy xool ci par exemple. bit beatmaker yi beaucoup si ñoom beatmaker comme genre deuxième kii lañ ko def quoi ñu ci bëri am nañu yeneen liggéey. waaw du dara nag loolu c'est c'est loolu c'est à c'est à saluer nga nekk ci musique ba pare am beneen liggéey mais da ngay si ñoo xam ne gëmuñu ni bit beatmaking bi mun na leen indil dara tey ba nga xam ne beneen liggéey bi dinañ ko sacrifier maanaam si ñaar yooyu bu dee dafa am benn bu ñuy sacrifier beatmaker bi beatmaking bi la ñuy sacrifier dem donc. ñun tànk nag hip hop bi tolluwul foofu noonu créé wu ñu benn modèle wala de modèles yi nga xam ne après ñun dinañ mun a tënku ci loolu ba nga xam ne ñi ci nekk ñu ngi ciy gis seen bopp je pense que on peut pas parler d'industrie. léegi dafa am ñaari aspect yoo xam ne sa tam daf ko souligner d'abord aspect euh, situation wu réew mi on est dans un pays pauvre ba tax nit ki mënul concentré wu ci benn liggéey boo xam ne bu ci am par exemple weer bi ah, cent mille francs au max si lay yem. donc forcément il faut il va falloir mu trouver beneen travail boo xam ne moo koy def léegi bu boobaa il sera obligé mu sacrifier bi nga xam ne euh, revenu bi mooy gën a tuuti ko bu ci ëpp beneen bi mooy aspect formation bi parce que dafa tudd ni culture la les gens ki nga xam ne moo war a récupérer xaalis ci li muy liggéey moom amul culture amul connaissance ni ah moom de bu jëlee photo pour un artiste wala sax parfois mu def publication pour un artiste il doit peut-être boo xam ne jox nañ ko loolu liggéey ci marketing bi et wala ci communication bi naka la ñu mën a fexee ba ñaari yooyu noonu ñu mën ko pallier pauvreté bi mais aussi aspect euh, formation bi. waaw di di leen béggewaat rek encore et j'en profite pour présenter wu man man la Bamba. Mm-hmm. Bamba Jéggi Raay ñu bëri xayma ci Bamba Jéggi Raay. Mm-hmm. et membre membre fondateur de Jéggi Raay directeur assistif et manager label. bon en fait da ngeen na laal thème bu am solo. bu am solo au moment loolu bokk na ci lii doxal yëf yi quoi. maintenant. man j'ai l'habitude de le dire c'est vrai que nous nous avons la chance maintenant ak nga boo dee xool dans l'histoire lu mel ni aux États-Unis en France au début c'était tellement difficile ñoom comme ñun niñ ko dundee mais tamit foofu c'est des pays bien organisés de sorte ba nga xam ne nguur gi moom bu demee ba xam ne lii ça regroupe beaucoup de jeunes et xaalis dina ci am xaalis boo xam ni ay taxes yu ñuy fay dem ci keesu état bi da koy jóg régulariser ko et loolu bokk na la malheur fii Sénégal di état bi pour man moo waroon am benn vision ne attends ces jeunes là li ñuy def nii lii y a beaucoup d' xaaral ma xool nu ma leen accompagner structurer ko ba nga xam ni comme kii ni mu ko mentionné un promoteur pour nga nekk pour nga organiser il faut nga am benn licence ainsi de de même chose ainsi de suite et à partir de là dina yomb la suite ñun les acteurs ñu gérer ko parce que les acteurs am na loo xam ni am nañ loo xam ni état bi la je donne un exemple tey BCA. fi mu tolloon ak fi mu dem nii. SODAV Union européenne moo leen ba gars yi dafay formation daal di créé lu mel ni SODAV. kii SODAV gis nga ci tànk yi mu nekk malgré des na. Hmm. mais tey xoolal tey dañ ko yàgg di ko ñaxtu. muy rajo yi télé yi. pour ñu fay droit yi ni mu war a ko fayee c'est tout un problème. Hmm. donc ren baax may waxee. actuellement y a l'internet et les plateformes. voilà maintenant nag affaire bi xaalis su bëri moo nekk en ci yëf yi. Hmm. peut-être comme ni ko kii waxee sœur gars yi des fois. bu ñuy sacrifier sax ci liñ nekk loolu ay beat making du genre ou bien loolu ñuy gën a préférer sacrifier or ko loolu job la ko yeneen job peut-être dañuy ragal. genre comme c'est pas bien organisé que affaire yooyu jàppoon baax mais mooy li ma wax rek les acteurs am ci part de responsabilité parce que man pour man en tant que compositeur war nañu am benn méthode maintenant mu su ma lay jaay wala su ma lay may su ma composé bi peut être balaa ma la kaa jox naa la exiger ngay ni fii Sodav bi ma remplir nga dem nga déclarer ko tamit loolu lu jar xel la. soo nekkul membre ak loo déclaré wu kenn mun la rémunérer. effectivement te coow loolu bari na fi da ngay gis kenn man kenn joxuma bu ñuy partagé. te yow demoo déclaré. demoo protégé mais nu lay joxe. mooy ci fonds yeeg yi si jëm. non droit yi droit de droit de te plateforme yi ngay gis nii ku ci nekk dafa am ay royalties yooyu versé. waaw waaw. au niveau de SACEM xanaa léegi sax affaire yi gën na yomb à part de SACEM ak SODAV. Mhm. parce que euh, après biñ BSA euh, bi mu ngi si bañ def SODAV. gars yi dañu amoon benn problème pour trouver terrain d'entente entre ñoom ak SACEM. ba autant daanu ñëwoon verser yenn yi li ñu war a am fii. canal daanu nangoo fay was tamit euh, Sodaar. maintenant trouvé nañ benn consensus. léegi muy Deezer Spotify plateforme yëpp foofu dañuy verser ay royalties SACEM. léegi artiste bi yow boo ko déclaré au niveau boo nekkee membre Sodav nga déclaré Sodav Sodav dina mën a toppaloo SACEM ñu delloo la ko. Hmm. comprendre cest à acteurs yi am nañ ci benn part responsable mais dafa leen loo xam ne nguur gi moo ko mën a régulariser. de sorte gars xam ne lii liggéey la business la. et à de là les bailleurs nañ ñëw créer képp ni mu koy waxee major nañ ñëw fi implanté foofu niveau de Dakar et su boobaa yow obligé nga investir ci xaalis en retour da am loo ci xaar. léegi libéral nekk par exemple promoteur. nekk artiste nekk chroniqueur nekk euh, nu acteur culture urbaine d'une ni mu ni mu yombee quoi nañ ko libéraliser est-ce que loolu gouvernement bi wala boog état bi d'une manière générale dina mën a taxaw régulariser ko est-ce que dina yomb ñu régulariser ko d'autant plus que benn Bouchra wala benn tam mooy toog këram rek ne eh léegi je vais devenir un beatmaker. non moom laa que am na loo xam ne état bi da koy régulariser comme dans le c'est-à-dire nii nii nii le minimum genre ñëpp xam nañu dafa nekkul yoon nekk ci dëkk. Mhm. di def ay activité di gagné xaalis en retour doo am dara looy dugal ci caisse état doo fay taxe doo fay dara loolu amul benn cohérence amul cest à fu ma waxee structuration saa ñu xam ne tel profil il faut nga créer entreprise te boo créer une entreprise di nga fay di am ay papiers reconnus par l'état statut tout yëpp et là di am looy gagné di versé comprendre bu bu defee loolu ñun ñun les acteurs et comme ni ma ko waxee sànq avant ñuy démarrer en France ñaata association moom foo xam ñu ngi ci milieu musique hormis budul SACEM am na ñeneen am na SPPF am na pas mal mais ñooñu bokk nañ ci ñuy faciliter euh, nguur gi pour yenn décision yenn affaire ak jàppal bàyyi la te là milieu bi day clean barki Demba Ndiaye maa ngi lire benn article sur Twitter ñu dem ba Union européenne député yi di wax ci affaire régulariser euh, comment dirais-je plateforme yi en fonction li ñuy rémunérer artistes yi ak jàppal bàyyi imaginez ah. parce que xaalis su bëri moo nekk en et loolu si toutefois que euh, européen dañ ciy gañ mais état yi dañ ciy gagné aussi. waaw waaw waaw. est-ce que comprendre donc foofu laay foofu laay fekk seen loolu ku mu ne su boobaa bu ko defee su boobaa man dina dem ba à un moment donné sax pour nga nekk chroniqueur dinañ xam ni il faut le minimum nga am benn bagage bi. Mhm. il faut nga def say preuve. xam nga tey def say preuve nekkul nga toog créer sa yëf bopp rek balancer non non su boobaa tamit nañuy dañuy jouer ci crédibilité bi parce que tamit muy plateforme yooyu wéré ba muy rajo yooyu nañ soxlay chroniqueur yoo xam dañoo am benn crédibilité bi te loolu il faut nga def say preuve mooy mooy mooy bokk na ci lay mën a may gars yi reconnaître la loolu donc man pour man c'est faisable mais tamit ñun les acteurs am nañ ci part de responsabilité bu rëy a rëy. de structures yu nekk fii ah on parle d'Afrique culture urbaine yu nekk ci région yi mais ñooñu tamit ban rôle lañ ci am parce que ñooñu dañu déposer ñu financé leen am na financement yoo xam ne état bi na si laal peut am na yoo xam ne euh, yeneen organisme dinañ ñëw def sa euh, structure yooyu mais structure yooyu dañuy def ay formation dañuy def euh, dinañ permettre artistes yi ñuy ñëw di fa di fa di fa di fa enregistré wala yeneen ay formation hip hop d'une manière générale mais ñooñu ban rôle lañ am ci loolu noonu parce que tamit du ñu bàyyi c'est vrai que état la ñu wax ci réew moo xam ne c'est un peu difficile état dugal loxoom ci milieu bi ak climat bi nga xam ne moo moo moo instauré wu entre la rappeur d'une le rappeur kese sax parce que léegi waxuñu hip bi kese mais le rappeur ak le gouvernement contre bi pouvoir yi et cetera rôle structure yooyu nu mu demee. bon structure yi ñoom leen lañu def ñoom ils ont ils ont ils ont ils ont apporté la pierre à l'édifice ñoom seen rôle comme en tant que artiste ñu nga nekk artiste. di di def sa rôle ñoom seen rôle lañ def. boo jëlee ku ci mel agriculture urbaine dafay organiser déjà ay ay ay kii ay concours de rap. Hmm. dafay jox xaar ñoo xam ne ni tey seen giiru seen carrière lëmb du ñu am montant boobu. waaw mu koy jox nit ci benn ci deux trois quatre mois cinq mois. Hmm. loolu moom moom moo ngi def moo ngi def wareefam moo ngi former ay nit ci ay management wala ci des des métiers du numérique ci mel ni comme ay kii audiovisuel et cetera ay vidéo montage clip et cetera wala beatmaking et cetera. management bi moom mooy day dellu ci structuration tey par exemple bu la former am management dina tax yow quand tu prendras en charge un artiste. ñu ko ne euh, yow nii ngay demee nii ngay demee pour nga officiel wala nga formel il faut nga def lii il faut nga ubbi entreprise il faut nga jox ko tur bi il faut nga am quitus il faut nga dem fay fiscalité bi et nga nekk en règle avec les kii tout et tout euh, day tax yow tamit nga am crédibilité déjà soo bëggee def un prêt comme une entreprise nga dem auprès des banques bëgg a def un prêt bancaire. wala tamit nga bëgg a réclamer un dû au au gouvernement wala benn affaire comme par exemple les financements yu fonds day kii fonds yu fonds fonds d'équités humaines fonds d'équités boo amul kayit boo déposé duñ la jox hmm. par exemple xam nga loolu da lay da lay poussé na am kayit gars il a fallu xaalisam pour wax leen affaire retard bi ñu am rek il a fallu ñu ne xaalis mu ngi sur la table hmm. que gars yi bëri dawandoon naan dañuy régulariser dañuy créer dañuy créer dañuy créer dañuy créer te loolu waroon nañ Simon yàgg na ko ay jamono jamono neuf nine nine mbir boobu daan na woon ne leen structurez-vous di ngeen am dara parce que et cetera et cetera am na ñuy jiitu ci loolu. mais dañuy fa. y a une certaine avancée. non mën ci rajouter sax parce que pour wax ni nous sommes trop en mm-hmm. sooy xool histoire du hip hop en France. Mm-hmm. Euh, genre euh, lunatique rek exemple la. Mm-hmm. bu ñu expliquer seen jaar jaar seen. projet bu mu waree génn bu ñu ko doon projet. bu ñu ko doon présenté label yi li ñu leen doon pour ñu def ko. tout à fait a fallu ñu ne attends ñu dem bu seen papier donc ci soir ñu koy wax ci la ñëwee ñu doon indépendant. ak Jean Pierre Seck ñoom ñu def ko lancé ko tout donc imagine automatiquement dafa structuré wu parce que loolu dafa am solo mënoo nekk dans un pays di def business bu am xaalis bu pare en retour amoo dara looy verser ci keesu état bi amul benn ko nañ ko wax te dee. dañu nekk dans un pays développé bugg nañ tamit mu jëm kanam dafa am loo xam ni ku nekk li la war ak dëkk bi def ko peut-être je peux comprendre que ñenn ñi des fois manque d'information. dama koy accepté. mais léegi concernant question bi nga posé man je li ma ci bëgg a dolli mooy que c' est vrai. Mm-hmm. ci culture hip hop xam nga ñun ñëpp dañoo foogoon ne affaire bi dem studio enregistré ak affaire yooyu jàppal bàyyi comme ça toujours été ci yenn dëkk yi aux États-Unis début noonu la demee. mais à un dafay laaj aussi tamit pour mu dugg ci bureau yi entreprise yeeg état recret il faut tamit nga monter genre nga am ñu taxaw genn ci gannaaw administrativement te boo mm. xoolee aspect boobu aspect administratif bokk na ci li tardé liggéey bi mm. ba tey nii day gis c'est tout un problème certains artistes ou bien certains suy mën a décrocher ay ay sponsoring ou ay loolu bokk na ci aspect administratif la ñàkkal fayda mm. et maintenant je pour rejoindre la par rapport ak yenn structures yi c'est vrai c'est des associations à but politique daf ci bokk ñu xool encadrer yi. former leen de suite.

xamante donc loolu vraiment ñu bigga ko ci loolu mais mhm. avant tout y a l'artiste et mhm. fii dañuy wax artiste rappeur bon ñun ñuy fréquenté parfois studio yi artiste bi buy ñëw déjà di enregistré mhm. moom kese mooy ñëw toog y a pas de direction artistique même bu fekkee artiste dafa war a libre mais quand même moom kese mooy ñëw alors que dans les autres pays on peut donner des États-Unis wala feneen ak yi même bu fekkee artiste bi dafa am home studio bu defee son ba pare son producteur wala boobu képp ko xam ne dafa nekk ci équipe am dafay jot son bi. Hmm. am lu mu ci xalaat ñii wax ci communication bi ñii wax ci aspect digital bi. Hmm. lan mooy équipe bi nga xam ne moo war a taxaw ci ginnaaw artiste pour moom bu génnee dara. mu hmm. egg fa mu war a egg. sans pour autant que mu yem ci dégg nañ ko rek def na benn buzz une semaine deux semaine après mu fay. ok man damay dellu rek ci ci ñàkk information bi les gens ici on peut pas toujours les condamner parce que amuñu information maanaam ils ne pas ni mu war a demee parce que tamit lenn am na ci comme nu ko grand waxee ñàkk structuration tamit ba en fait affaire sava va ça va plus loin que ça parce que ñun profession artiste sax doo ko gis ci carte nit ñi ah. donc ñun on ne pas xaw ma ndax ah man de mosuma gis ku carte d'identité ni profession artiste <laughs> te fii nii daa mel ni nanguwuñu ko ba tey gaa gaa yaa ngi koy xeex pour ñu am loolu ko ah, ah. pour ñu waaw ñu ngi koy ñu ngi koy xeex ba tey mais amuñu loolu donc même ñun sax ñun on ne reconnaît pas comme comme benn kii waaw voilà déjà hmm, musicien waa normalement. <laughs> non foofu. on suppose rek ah, pays développés ñoom dañoo dem ba nga xam ne lépp la ñuy def métier maanaam ñun dañ ko dañ ko. booy def nii sax ñu gis ni naaj na ñu ne ah lii kaare ñu formaliser ko ñu jàngal booy lii nii quoi. maanaam foofu foofu la àdduna bi toll. lépp loo gis ni lii nit mu koy def te mu ngi suscité benn monde derrière ñu xam ne ah lii mun nañ ci jaar mu indi xaalis wala mu indi leneen nit mun na fi jaar mu nekk ascension mu nekk kii boo xam ne da koy permettre mu am def ci ascension sociale mais ñun àgguñu foofu léegi nag combat bi mooy comment nan la ñuy àggee ci loolu. nan la ñuy xeexee tey ba ñu reconnaître artistes yi waxuma je parle même pas de hip hop moo tax ma ne dafa dafa sori nan la ñuy def ba reconnaître artistes yi comme ñi nga xam ne ñoom ay acteurs de développement la. Mm-hmm. sànq balaa ñuy commencé mu ngi koy wax mu ne tant que état bi gëmuñu ni. lii nii parce que noonu la gars yi même sponsor sponsor bu gisul ni mun nga ko indil dara du la lijjanti. les il faut il yi gars yi moo tax da ngay gis léeg-léeg nit kaas wooyi sponsor mais nit ki da lay naan qu'est-ce que tu m'apportes lan nga may indil. Mm-hmm. mais yow tolloo fi nga xam ne da koy indil dara te c'est c'est comme ni nga ko waxee sànq c'est malheureux ñu dem ba nga xam ne bu état bi ne fond des cultures urbaines gars yi formalisé wu daw da maar da koy wax souvent mu ne. fonds des cultures urbaines yi c' est le meilleur moyen pour régulariser hip hop bi mu ne gis nga gars bu ñu bu ñu décidé woon dëgg ñu bëgg defar affaire dëgg lépp normal ci fond ci fond des cultures urbaines yi la ñuy jaar parce que tu vois tu vois des gens c'est waaw c'est décarcassé pour pour formel parce que secteur informel lañ nekk mm. dafa dafa dafa informel dégg nga mun nga dem fii job son cent mille suba nga dem fële job ko cinq mille. effectivement donc loolu loolu. mouvement bi mënul mënul waaw waaw mënul dem tant que àgguñ ci loolu. léegi contrôle moo doon wax bi nga xam ne mooy nekk ci ginnaaw artiste. waaw moo tax ma ne processus la. Hmm. processus la xam nga man miy toog sama kër déglu son bu commencé rap ñun ñëpp fa leen jaaraan. loolu moom il faut nga nangul ko booy waaw loolu foo mënti dem gaa yi fa leen jaar léegi nag y a yoo xam ne nag. am nañ may yàlla commencé takk kenn détecté leen rek ne ah kii bi baax ñu récupéré ko am na ay gars yoo xam ne ñoom peut-être euh, grand ma bu déggee booy bi rek ne kii kala ne ko ah booy kaay ma yóbbu la jéggi raay donc foofu automatiquement y a une équipe derrière. Mm-hmm. bu koy topp tëggal ko concert mu am suivi. mais donc est-ce que sax fii nii am na label. waaw mais am am na ñoo xam ne tey jii am na ñoo xam ne il faut nga il faut ñu jaar foofu noonu jaar jaar la ba ba jour ba nga xam ne kenn détecté na leen wala ñoom sax. parce que hip hop bi yemul rek ci bind son ah. chaque jour moo ko mane ne bind son dugg studio moo gën a yomb ci processus bi c'est la chose la plus facile. ci processus bi dafa am loo xam ne loolu mooy ñëw après wala sax avant donc yow boo amul chance boobu noonu nga xam genre nit yooyu yu la koy defar donc am ñoo xam ne ñoo koy dem ba comprendre ko parce que dañuy nekk ci YouTube bi dañuy nekk fu ne dañuy dañuy dem à l'information di gis ni ah kon man j'ai besoin de ça j'ai mais instant bi yow. ci vois pas munoo mënoo underground munoo ne da fay nit xam nga donc en général ñiy jàpp ci sa business ñu ci gën a bëri dès le début ce des gens yoo xam ne ils son des gens qui en toi. ñoo xam ne ah, kii nañ gëm ci nañ ko gëm te xam nañ ne nañu indil dara. ñu def ci jàpp ci waaw mais ñun on n'est pas ba nga xam ne booy bi day ñëw rek nga ne ko waaw kaa ñu defal li ñu defal ñëpp. te du dépendre sax ci contrat. voilà bëri ay accord de principe lay. voilà voilà le concerné ak. waaw loolu loolu lay nekk quoi doo tax hmm. day wàlli ba ci game bi. Hmm. problème mu label ak label. Hmm. ah clashante bi ci biir loolu yëpp bon même bu fekkee ça c'est c'est de bonne guerre quand ci loolu la ñuy indee. aspect wu game bi bu ñu waxee game bi dañuy wax rappeurs yi seen biir relationship bi nga xam ne moom am nañ ko relation bi nga xam ne moom lañ ko am mën nañ ko am seen biir mais aussi artistiquement confrontation wala yi nga xam ne moo mën a am ci game bi naka la mën a wàllisee ba laal industrie bi réellement dama mën ko que loolu am solo trop en man je en fait bu ñu dutee ni fii label bu mag am na fi ou producteur bu mag ou problème cest pour man mooy li may wax lépp ay investissement la rek cest bu gars yi bu ñu gisoon lu rassurant mhm. billahi wallahi di nga gis label bu génne def les mooy teg ko sur la table pour un artiste durant sa carrière ou bien promoteur mag maintenant tu peux pas nga ñëw def ci benn produit cinq millions te leer na la doo récupérer sa sax moitié bi donc c'est ça c'est ça le problème moo tax ma ne yëpp ay sécurité la si toutefois que loolu am na si c'était bien géré de sorte ba nga xam ni yow mii soo jëlee lii def ko ci lii di nga ko jot gars yi def ko ci damay jox benn anecdote UK Records xaw ma yéen a ngi koy fàttaliku ko ah. Undercover Record man ci membre fondateur yi laa bokkoon mm. maa nekkoon manager bi mm. c' était grâce à man que ñu si lañ produit woon euh, projet 23 3 23 3 waaw boobu suñu coono seen nopp la voilà loolu c' était grâce à moi boobu gars ñu woon Espagne ñu dégluloo ma ba fii affaire parce que gars yi euh, Aliou John Touré King Sall xamante woon ay Skilzo maa ko boole woon ak maa ko boole woon ak Sub Zero genre affaire yooyu noonu donc voilà noonu laa jotee envoyé gars yi ba ci la production fait mais moment bi ñuy implanté wu fële euh, comment ça ba Diop derrière mm-hmm. si baa nga fa woon tuye wut moment wu approché nañ benn boy bu doon carton jamono yooyu mais xam la laajoon mm-hmm. il était dañ euh, ko jox appartement meublé ko jox appartement meublé léegi léegi affaire yooyu laaj ko ok mm-hmm. mun na nekk condition nga garantir ma di nga di nga jaay mille CD artiste bi dafa ruux. ñu bàyyi ko mu mu mu mu tiw micro am. waaye ñu wax lu am solo en ci côté boobu noonu. mooy valeur bi nga xam ne moom la ñuy jox suñu bopp avant keneen di ñëw. parce qu'on parle de label. fii li ci ëpp des maisons de production la. Mm. mën nañu joxe exemple des maisons de production yoo xam ne. ba ñuy ñëw fii nii am nañ bokkan mais actuellement on parle il n'existe plus ah moom pour parler de de de Kayz bi nga xam ne par exemple ba muy ñëw ak façon bi mu ñëwee xam nga les artistes ku nekk Kayz mais maintenant on parle plus de Kayz ah y' a même la dernière fois euh, Universal bi nga xam ne peut-être signé na Omzo Dollar mais ba léegi gisaguñ dara de i Africa bu Booba signé Dope Boy bon yaa am na ay fii nii maison de production yoo xam ne mi ngi fii nii nii nii au Sénégal. réellement est-ce que réellement assi artistes yi valoriser nañ seen bopp ba mën a signer ci ci ci ci label yu mag yooyu noonu quoi wax yi ñuy woowee yu mag. non non mun na doon choix. xam nga par exemple tey euh, soo soo nekkee indé soo nekk artiste indé quoi. Euh, nga nga nga def nga fexe ba nga am yenn statut. label bu ñëwee même bu nekkee label bu mag label lu muy lu muy def lu ci bëri da lay faciliter liggéey bi da def dans les conditions parce qu'il a les moyens tey lu ñu xam lu ñu jokki label bu la signé la normalement dafa war a jox xaalis xaalis bu bëri après nga xool ngay après mu lay sant la liggéeyal la jox benn créneau la yow ni nii ngay liggéey par exemple booy xool boo jëlee ku ci mel ni bon exemple laa jël parce que ñoom ñooy la kaaba de la mhm. hip hop États-Unis ko euh, After America signé un million de dollars ko jox moom bu yàgg ba mu gëmoo ko woon parce que moom suñu liggéey loolu. waaw parce que jaaxul montant dafa bëri parce que un million de ci États-Unis la waaw un million de dollars. léegi nag label yi par exemple léegi boo nekk un indé nga dem ba àgg niveau boobu noonu label bu ñëwee dala proposer xaalis mel mun nga bañ. mu ne non man sama méthode man nu man définir man nu may liggéeyee baax na naa ci génn ci kaw nga ci mu structuré parce que structuration bi moom day day nekk quoi day mooy doon base bi. ici par exemple tey nga tey boo définir un un modèle business pour yow un artiste nga ne man je suis un artiste il faut moo faire ma def un produit un produit bi c'est quoi la cible c'est quoi le prix nu ma koy jaayee. nag fan lay ak fan laa ko mën a yóbbu. distribution beeg yooyu noonu la promotion nu ma koy defee. Mm. éléments yi nga définir ko boo ko définiree avec. en engouement détermination tout yàlla mën na la dimbali nga àgg fu nga jëm nga dépasser sa yow ses attentes damay jox un exemple beneen exemple Dipsey bu nekk New Harlem ñoom bu ñuy génne seen premier album yaakaar na su dañuy jaay ki ñoo ngi jaay trois cent mille exemplaires hmm. la njëg ñu ne bu ñu ko jaayee dañoo parce que trois cent mille exemplaires xaalis la presque ay trois millions hmm. de dollars et parce que ñoom ay indee la moom lañ dem ci major major ci lu ñu leen hmm. ñoom ñu demal seen bopp structuré yoo yaa koy déterminer yow yaay kii yaa ne tey process bi naka la moom bugg naa sama produit àgg Tamba nga fexe nu muy àggee tàmma moom bëgg naa tey xale bu am 12 ans 10 ans wala mag bu am 50 ans mu déglu sama produit yow yaa xam noo koy defe mun bëgg naa tey ku seetaan sama clip bëgg a seetaanaat sama clip yow noo koy defee bëgg naa tam ku bëgg a seetaan sama clip mu yomb ko mu seetaan sama clip bëgg naa tam ku dëgg bëgg a sama son mu yomb ko mu déglu sama son loolu yëpp yow yaa koy jox léegi yooyu noonu euh, mooy lu ma doon wax sax équipe boobu il faut parce que mënoo mënoo defandoo lépp uh-huh. mu nga am équipe boo xam ne moo lay dimbali ci yooyu noonu ba nga àgg foofu noonu léegi boo àggee foofu noonu yow mun nga toog nga ne donc non label bu ñëwee garaal quoi mun naa gérer. tey boo doon def des chiffres d'affaires annuels de trente millions wala vingt cinq millions wala cinquante million label ñëw ne la non dama lay jox nga un chèque boo xam ne ni dix millions la ah, da nga ne déedéet bëgguma dix millions soit da nga may jox cent millions wala du ma ñëw label ki nga bàyyi parce que man je fais plus que label lu ma proposé. mais l'autoproduction. waaw l'autoproduction fii nii au Sénégal. quand un artiste ne man maa produire sama bopp autoproduction la quoi parce que les artistes dañ leen di rajo. kan moo produire sa album autoproduction la. autoproduction la autoproduction ñoom li ñu koy jàppee mooy. man am naa sama sama c'est-à-dire beatmaker ñoo ma tëggal sama kii ma defar ko après man j'ai sorti le produit mais ñoom produit bi après communication bi war si ginnaaw ak li ci kii ils n'ont pas les compétences nécessaires pour loolu mën a am. xam nga ñoom moo tax dañuy génnee produit mu def deux semaines après c'est fini ah. xam nga ñoom par exemple xam nga ma tënk rek si ñaari kii par exemple da xool booy jël. Euh, parce que donc dañuy assimilé quoi boo jëlee les quatre points du market les quatre P du marketing. Mhm. ñoom ñaari lañ ci lañ ciy def te duñ ko duñ ko defee baax mooy dañuy fexe am produit. Mhm. mooy autoproduction booy wax boobu mhm. mooy mooy autoproduction yamul ci lan. surtout dafa la ma pit man ñu mën a def son dem si studio enregistré enregistrement bu sax dañ ma koy may sa des fois. waaw et cetera ma génn compter samay son. génne leen album dafa sama benn cover gis benn PND wala benn Pix dafa sama cover mu ñëw génnoon def naa autoproduction. Mm. te yow lay benn boo mooy premier point deuxième point bi mooy yow mën nañ noo seere naa ko jaay wala album naa ko jaayee dix mille francs mm. et cetera mais leneen li ci gën a la distribution. Mm. la promotion et cetera. yow yooyu nag est-ce que amoo moyen parce que tamit benn affaire bi mos na wax benn affaire mu ne képp ku koy concurrence foog nga yor xaalis. wax boobu yi dañ jël la parce que il a mis les gros moyens. non am lu muy am fii Esplanade il a mis les gros pour defar stade ak sono bi la apportu label foofu lay. voilà léegi kii par exemple un kii tey bu réussir ay choses parce que il a gros moyens pour seen i tey man soo demee tey gis seen suba benn rappeur. Mhm. buy defaat seen. gën a demandé fan laa jëlee woon seen bi. te boobaa chaîne bu ñu doon wax sànq day liggéeyloo ñuy def lumière yi. liggéeyloo ingénieur son yi loo ñuy def strat et cetera loolu chaîne après. industrie c'est vrai que. concernant li nga doon wax sama ci modèle économique bi. Mm-hmm. en fait man mun naa jox li ma dund rek laa mën a. wax par rapport ak Jéggi Raay. donc je prends un exemple Jéggi Raay studio d'enregistrement mm-hmm. la. label de musique en même temps. Mm-hmm. ça Jéggi Raay bi ñu de créé en mais bi ko créé en 2009 on s'est dit duñ dugg defaguñ ci production. créé nañ ko ñu dawal 5 ans 6 ans defuñu production. lu tax. ñun on était là ça fait plus de vingt cinq ans ñu ngi ci game bi. Mhm. gisoon nañ ay keneen studio ñu ngi fii. waaw ay euh, le gars de Grand Yoff Omzo Supli mhm. mu ngi fii. Mhm. ay Pendra mu ngi fi woon. gars yëpp pare daw ay UK gars yëpp pare daw génn. ñun on s'est dit c'est quoi le problème. production bi ñi ko doon def daw nañ génn. donc kon affaire bi doxul carrément. et ñun à notre niveau on s'est dafa war a dox. parce que dañoo studio d'enregistrement. waaw ñu ne attends ci lañ commencé cinq ans après. ci lañ commencé commencé contacter certains artistes. Mm-hmm. mais bu ñu xam nañ tamit vente ama ko fi. Mm-hmm. mais ñun ce qu'on pouvait faire mooy nañu fexe. Mm-hmm. via suñu studio d'enregistrement bi. via les artistes là nos artistes là nañu fexe bu am promo bi war et ça va pousser pas mal de clients ñu ñëw. fay foofu au moins activité. mooy mooy paie bi wax quoi promotion. cest à loolu moo ñu fu moo tax ñun laa gis concernant les jeunes la ñu leen accompagner dañu naan yaa y a l'équipe Kef mu ngi foofu c'est un ancien il s'y connaît moom c'est lui qui gère moom mooy dëkk artiste projet yi mm-hmm. d'ailleurs moo naan booy wayal ni wayal ni posé fii lépp ok su génnee qu'est-ce que reste à faire la promo la promo et la communication dëkk bu nekk ak fii dafa am ay réalité ci la ñuy basé wu rajo émission rajo yi télé yi mm-hmm. et man de mon côté ma xool nu ma mën a teg tegee ay concert ak booy ak soit Soda je crois que yéen yéen yi voilà artiste lañ daal ñooy studio ñu gis artiste élève taqale job projet génne ko nga xam ni kii amul qu'est-ce qu'il va faire pour prévoir projet bu nice lay doon man bari na fi bari na fi l'occasion booy yi nga créer leen benn plateforme boo xam ne mm. dina leen permettre ñoom ñu mën a wu man si laa xamee waa jaaxas la non je te dis première édition bi tey booy yi nekk fii confirmé yëpp jaar nañu open door nga jël axaru bri mm. nga jël jàmbo nga jël bril fire bon dip moom laa j'ai pas eu l'occasion parce que maman ko génnee guma génnee parce que dil bi ñun c'était quoi fexe ba jéggiraay nekk benn point de départ par rapport ak booy mhm. yi mhm. parce que sumulaw lii am na benn période leus diwaan bi waaw bii booy ñëw na ba studio bi indil ma ko dem a signé ko. Mhm. boobu dootu boobu dañu dañ fuloon. <laughs> gisoo tey. proposé avant moo dem reptile. boobu reptile amagul woon sax. comprendre nga. One Lyrical turam jéggi raay lañ ko changé foofu tuddul woon One Lyrical. waaw j' ai comprendre cercle boobu ñun lañ bëggoon créer te on a réussi. tey au moment où je mal de projets yoo xam ne nekkul label ba lañ ko joobee de yeneen i studio mais finition kef lañ koy indil mu mixé mu masterisé donc voilà donc l'idée au départ c' était ça. mais l'équipe l'équipe xam nga en fait li nga wax nii c'est c'est c'est très bien parce que c'est une adaptation par rapport ak réalité sociale mais bi nga xam ne moom mooy def loolu yooyu noonu. bu projet bi ñëwee am na direction artistique ba mu génn ba pare la communication derrière te léegi on parle de communication digitale d'une manière générale parce que les artistes dañuy am seen compte Facebook Instagram Twitter et cetera boole ceeg chaîne YouTube bi nga xam ne moom la am pour mën a promouvoir li ñu yor parce que dañuy bëgg a monétiser li nga xam ne moom la ñuy génnee foofu laa doon ñëw nag cest dire moo tax may la am na leen loo xam ne les acteurs mun loo xam c'est nos autorités waaw kay c'est que loolu c'est le minimum mu tax sànq yi bi muy cité aux États-Unis c'est bien c'est bien booy jël exemple en France mm. mais foofu c'est bien structuré parce que un artiste quatre aspects yi mën na ci gagner xaalis mm. mën nga génn album nga jaay ko mm. waaw c'est des physique bi mën ko def ci plateforme yi et en retour plateforme yi dafa am royalties yu ñu lay fay yow en retour télé yi dañuy fay ay droits rajo yi dañuy fay ay droits loolu dafa leen di may soo génnee a son bu doon am nga xaalis moo tax ñi ci muus ñi yàlla dimbali ñu nekk en denne bi génnee dal nañ ci. mais le seul le vrai problème mooy ñëw après pour nga def sa promo comme ni mu waree. moo tax foofu la sensu liggéey ak la doon amee mm-hmm. tamit ay dafa am ay droit yoo xam ni dafay nekk soo joobal ak label doo ko mën récupérer parce que ñoom dañoo am ay gars yi ñuy joobal nga xam ñoom dinañ mën a topp loolu récupérer ko jox la ko. Mm-hmm. mais genre Youssou Ndour mais saa yi da ciy lu bari. keneen ak keneen. et c'est des yoo xam yow en denne yow tu peux tu peux pas le faire maintenant le seul problème fii gaal seen mooy dañoo raté suñu départ dañ ko raté mooy tu sors un album. <laughs> je donne l'exemple. waay je sais pas damay ragal des fois mais bon. fii fii y a pas y a filtre waaw mhm. di génnoon na album. Mhm. benn booy jël album def ko lépp audio ak ay 3 millions d'écoute. waaw. après bon après lu mu récupéré waaw moom ici connaît très bien waaw par le biais des Jean Pierre Seck toog na loolu ba récupéré ko tey artiste yu mag a mag yi fii am na yoo xam seen chaîne YouTube yi moomuñu ko moomuñu ko waaye un artiste non créé xoolal erreur da ngay gis ku génnee vidéo parce que loolu lan moo ko waral vidéo bi egg ci santé lan moo ko waral comment se fait yow nekkoo artiste nga mën a créer compte ci turu artiste yu jàmbur def ko produire mhm. moo tax rappelez-vous. droit de euh, tamit droit de. Fara bëgg a ñëw. Sarkozy bi mu gagné fii pourtant moom moo njëkk a créé foofu France loi Hadopi. loolu bi ñëwee teg ko mais artistes ah, dafa am affaire da ngay télécharger vite fait ñu envoyé la message. bàyyi nga dëgër boobu jékki-jékki jékki police ne jëm sa mais c'est des xam loolu nguur gi am nu mu doon accompagner. Mm. mais du yombee noonu. malgré des fois arnaque dina am parce que tamit. exemple doo day am exception parce que CFU euh, daal na ko. en France waaw waay benn nit dem na SACEM di récupérer droit am de kooku du CFU président de moom mooy CFU. Mm. affaire grave. Mm. non sérieux il a fallu dañ ko naroon pour fay ko mais benn waaye moom parce que moom xam nga la petite casquette bu ne après kenn moom moo rappelé loolu. xam ne du du moom quoi. donc c' est des choses xam ni c' est des faits nekk la mais tamit exception day am mooy fii day recevoir li wax ne nguur gi tamit am na ci part de responsabilité. parce que amuñu ko ñun lu bëri après dina yomb pour ñu teg ko. parce que tu sóoroo naal ba. Mm. doo dem déclarer ko nee naa la heure boobu la artiste yu bëri def nii. waaw tu sors un album si yow l' album boo ko protégé wul gars yi nañ fay droit de mais suñuy am waaw donc y' a un problème. Mm-hmm. Euh, on parle des awards awards yi nga xam ne am na fi. Mm-hmm. d' ailleurs débat bu mag la suscité sama album bi du dugg ci awards bi nangam sangam xam nga même bu fekkee parfois ça se comprend yenn artistes yi. mais dafa am benn pëccoxoo bu am pëccoxoo bi mooy lan da ngay gis sax ku génnee albumam album bi commencé fuité te moom distribué bu ko waa génne génne bu ko waa hmm. te album bi commencé na fuité saa les gens ñu ngi commencé di dal ci son yi parfois nga déglu benn son bu ñu dugal ci compilation nga ne son bi man déggoon naa ko bu yàgg hmm. artiste bi moom mooy njëkk a exposé ki yoom dal nañu fii avec euh, le l'album de e la Rex T hmm. Senz Rex déjà amul production dafa da ko doon jaay via WhatsApp mu dem ba ci biir ñi mu ko jaay via WhatsApp am ñu filtré loolu noonu am yenn yu génn alors ko sax déclaré woon nañu kii bi album bu yàgg. maintenant foofu moom du am layu ci ki piraté ki yoom parce que moom déjà peut-être amul amul amul certification ak la ci réellement quoi l'artiste moom ci boppam lam càggante boobu noonu noonu noonu quoi c'est quoi problème. Euh, bon man jàpp ma sàggan la sax ah <laughs> jàpp ma sàggan la waa kii. ah <laughs> mais bon. ah mais c'est une réalité ah. non non dëgg la mais toujours li ñuy wax rek li gars yi man gars yi laay rejoindre rek gis nga affaire dafa dafa dafa dafa gis nga ñu ngi wax ay affaire de droit affaire yooyu noonu mais ñun ñun fii nii gars yi SODAV. da baax ñu toog fii ñu wax ñu ñoom nan la ñuy toppee ba récupérer droit gars yi. waaw. parce que tey jii am na yoo xam ne dañ koy def nii rek mais informel xam nga des fois dañuy ne informel mooy ñàkk këyit affaire yooyu noonu mais informel sax même dans la manière de travail dafa cere. Mm-hmm. jamono mooy dox mais ñun on ne veut ñun adapté wuñu ñun dañoo bañ dem. Mm-hmm. par exemple quand son bi daw tey ci àll bi ci benn rajo quinze mille fois kenn mënu wax. ñaata donc ñu la nee fay nañ la sa droit ay ay ay des fois ay reerale xam nga keroog dama doon kii rek ak benn DJ DJ na ñuy waxtaan ci ci benn kii mu may affaire de son yi DJ bi buy animé bu tegee son bi mu noté bu tegee son mu noté pour après gars yi ñëw récupérer loolu. léegi bu tegee son nga noté wul ma ne ko non ma ne ko dafa da nga warul sax noté jamono dafa dépassé loolu fii. parce que man man man mi man su ma nekkoon frère di rap. chaque jour mu noteel ma kon chaque jour mu noteel ma chaque jour mu noteel ma dem wala dem fay ay DJ yu bëri ne leen noteel leen ma chaque jour yéen fay bi noteel leen ni teg ngeen ma rek fay na ne ma dem récupérer technologie mën na loolu waaw gis nga moo tax nag technologie moo tax ma ne adduna bi foofu la toll parce que ñun ñu ngi gis avec les codes IRS kii nii bu ñuy bu ñuy bu ñuy masteriser gis nga son bi fu mu munti daw ak fépp mu fépp hmm. fépp Europe foofu la toll son bi day daw supermarché tak mu yónnee leen parce que affaire day générer benn code booy masteriser booy masteriser ça génère un code code boobu day mel ni ADN son bokkul bu ñu ko tegee supermarché wala aéroport automatiquement day envoyé ñële ne leen ah son diw daw na fi léegi ñoom dañu automatiquement dañu yónnee noonu ne lii ngeen di fay parce que son bi daw na fii ak fii parce que tout est waaw voilà léegi ñun léegi ñun àgguñu foofu non c'est c'est pas parce que on l'utilise pas parce que àgguñu foofu xanaa à moins que yow nga signé ak ñi nga xam ne peut-être ñoom am nañ loolu mais ñun fii. àgguñu foofu àgguñu foofu. dama koy jox exemple bu ndaw dama dama distaala daf ma woon benn formation pour former ay beatmaker bon ma jël benn son benn son la ba soosee la Seydi te yow sa ini xam ma jël ko di woon gars yi nu ñuy sample donc xam naa ni Djidé na sample na son boobu. Djidé na te mooy ama classique mais. sample na son boobu ci benn son. en fait bi may woon booy di staala di ko def live pour woon nit ñi ni surtout mu ngi jàngal gars semple sample li automatiquement Facebook signalé ko son la ba soose bi de Facebook signalé ko ne son bi son Djidé na dañ leen di dakk seen transition dañ koy dakk waaw enseignant yi gis. te la ma soose bu muy génnee loolu amaana sax gineen a judduwul judduwul quoi amaana sax que judduwul bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy def loolu mais xoolal rek léegi peut être kële ñoo kële lañ déclaré mais yow mi moo tax comme comme comme comme li mu wax des fois nan la ñuy dundee ci kaw ay artistes. gars yi ñuy dund ci kaw gars yi en fait te te soldat boo gisee sax ñu changé ko def ko BSD. ñu jël ba ñu def ko SODAV voisinage maanaam les lois ils sont censés de te protéger contre yow. Hmm. même contre toi maanaam tu peux yow sax boobu mënoo am au droit di renoncer. Hmm. normalement Europe noonu la tu ne peux pas les lois te protègent contre toi. Hmm. mënuma ñëw ne man. renoncer waaw mënoo ko est-ce que mais ñun tolloo foofu ñun nag man dama man dama jàpp ni combat foofu la war a nekk et structure yi sànq maa yoo xam ne pourtant ñu ngi liggéey ci loolu. gars yi tam mos naa ko wax yi ne ñu ngi liggéey ci ay profession artiste affaire yooyu mais ñun combat bi a chaque fois dañ koy raté dañuy ñëw bëgg a commencé digg bi ko alors que commencement bi lañ war a dem. nan lañ war a toppee yi ba nga xam ne ñoom ñoom dañuy respecté. fii da wax rek ñu ne la woy dem naa récupérer samay droit mais tu n'as même pas récupéré le un un un pour cent de dañ la war a fay. man fële nga la laajut. est ce ci li mu wax nii parce que am na benn période. dafa def naa ministre bi waaj gis toppaloo ministre de la culture bi mu mhm. bi mu ñëwee ne wàññi leen seen dépense yi quoi. Mhm. pour man loolu cax la rëy la quoi. dëgg la mu wax ko gars yi wàññi leen seen sari seen frais yi moo wax leen ko. pour man loolu lu bari la wax dëgg la dëgg la en fait ça dama lay rejoindre. Mhm. c'est tamit. dañ koy wax ba tey liggéey bi des na mais n'empêche change euh, lu bari am na changement am na par entre déjà bu njëkk ba am solo. actionnable dëgg ba léegi des na. parce que li mu wax dafa am hmm. muy wax nii da ngay dem yenn dëkk yi par zone. Hmm. day am benn antenne buy capté. Hmm. moo tag bu tawee fii mooy lancé tëmbal ko. mais yan mooy défi xam nga on parle de technologie. et de digitalisation surtout li nga xam ne moo xew léegi léegi rarement la artiste di génnee produit physique. léegi on utilise les plateformes de de streaming et cetera. nga nga baal ma ban adaptation lañ war am. en fait man sànq da dafa am fu ma tëb sànq nga wax loolu te pour man mooy li may wax. Mm. acteurs yi dañ ci am part mooy ñëwaat dañ ci am part de. Ah. sànq yaa ngi wax benn exemple bay jot par exemple. Senzala euh, ah, Senserex waaw. artistes yi des fois ñoo njëkk a pirater seen bopp. loolu laa wax <laughs> un artiste yow jàpp nga ni yëf doxul ou bien créer ngay da ngay jaay via WhatsApp. Mm. te wasaab bi daa lay wàññi qualité son bi artiste de un mun nga jaay ko devant support bi CD bi. dëgg la mais tamit bu ñu fàtte royalties yi. loolu mais loolu mais chaque anne teew dañ lay jox chaque année dañ lay jox. chaque année dañ lay jox te loolu soo ko déclaré wul benn. Hmm. c'est pas reconnu. dëgg tamit mu jaar ci plateforme légale yu tamit. Hmm. mais c'est dans ton intérêt. Hmm. maintenant nag gars yi dañuy jàpp ni naa ko envoyé WhatsApp nga jox ma lii rek après naa pare nga ci. mais yow yaay njëkk a pirater sa bopp. beneen bi beneen bi pour wuy si la bon mooy li may waxaat. digitalisation digitalisation lépp dafa am norme dafa am logique. bon li ma ngay continuer mën na ñu ñu defaale peut-être une un euh, big up ci euh, plateforme Dido bi nga xam ne Nix bokk na si ñu ko créé wax dëgg yàlla gis nañ ni voilà c' que quelque chose qui est adapté à réalité par rapport ak carte bancaire yi ñu ci Deezer ak Spotify wala yeneen kii quoi. waaw waaw loolu ça fait même pas trois jours ñu ngi am benn room bu yi defoon club house. oui oui waaw assisté woon naa waaw d' ailleurs sax maa ngi ci par rapport ak yooyu affaire yooyu jàppal bàyyi quoi en mu nekk initiative bu rafet mm-hmm. am lu bëri wax naa ko nee naa des loo xam yow jox gars information yi gars yi comprendre ko. surtout effectivement c' est dans notre intérêt. tout à fait am na benn bu ñëw nekk fii. donc. sa fait l'affaire maintenant numérique bi dafa am bëri loo xam ne ñun gaan seen comprendre moom il a intérêt à ce que mu dox mission bu wax naa ko te et puis reconnaître na loolu mm. parce que dem naa ko man mi sax de mon côté fooy pour wan li ci modèle économique bi ñu doon wax ñun pour plus pousser clientèle pour plus motiver clientèle bi ñëw mm-hmm. da gis booy bu job projet mu war ko génn ma rek attends kaay mu ñëw ma accompagner ko ne ko demal wuti carte prépayé yi soo jëndee carte prépayé nga ñëw nga toog ma mm-hmm. war la dem destroy ki créer la compte affaire yooyu dugg nga dugg mm-hmm. dugal gars yi envoyé sa son yi ci plateforme yi mm-hmm. loolu tamit beneen stratégie la boo xam ne pour booy yi parce que loolu dafa manqué booy yi et man ma defal leen ko jàpp naa ni jéeg ko defal dina tamit dina leen yombalal lu bëri donc pour mais fay ah non sa à dire mooy. fayeeku baax na mais sooy fayeeku nga xam ne am nañ lu ñu fayee. waaw mooy nee bu ñu joxee seen avance. bu ñu joxee avance. waaye balaa ñuy joxe reliquat pour day def ay mois wala deux ans <laughs> léegi kooku boo leen bëggee fay. nag c'est à toi xool noo leen motiver parce que loolu dafa xew moral économique li ngay wax donc man loolu bokk na ci li ñuy def ci affaire beneen bi mooy loolu noonu ci affaire digitation lu bari xamuñu ko ci. ba man mi compris chaque jour ko jafe dem ci jéem gëstu. mais chance bi nouvelle génération bi am exploité wuñu ko. Mm-hmm. internet a ngi nii. Mm-hmm.

koy wax ci plateau yeeg affaire yooyu te nouvelle génération bi sensible ñam sànq ñu ngi mentionné wax formation affaire management ak affaire yooyu mais il fut temps tal nañoo ko affaire doo mën a dem def ak yenn affaire rek jàppal bàyyil quoi mais nouvelle génération bi sensible ñam dañ ko exploité mhm. internet dafa ñëw yombal lépp mhm. maintenant boo mënul dem defee formation yow mën nga former aussi internet mhm. je pense que loolu ça fait l'affaire concernant digitalisation man je me rappelle bi ñuy ci net bi laa doon nekk 24 heures sur 24. créé compte taf taf dugg enregistré booy dëmbal dugal posé nii di ko jàpp noonu suñu dem fenn. ba yàlla def may ñu bës bi affaire noonu. et pour man booy war nañ ko mën a exploiter comme li ngay wax nii. Mm-hmm. il est temps booy heure bii njëkk a def. Mm-hmm. interpellé naa ay booy. je peux ay tour et ñoom siwu na mais je vais pas le faire. Mm-hmm. seen vidéo da daan génn ñu ji fexe ba envoyé ko Trace TV muy jàll Trace TV te demuñu sax déclaré ko Soda. Soda c'est grave te Trace TV. dañuy fay ay droits. da ngay bind seen émission sax na Trace. mais gis nga ñoom ñoo njëkk a piraté seen bopp. benn c'est-à-dire je les comprends. mais da xamuñu koo ciy waxul ma la dama xam nu mu demee. ba ci soo yi di commencé jàll ci plateforme yi duñ dem déclaré ko. so maa ngi lire suivre keroog Jean Pierre Seck doon waxtaan ci benn émission bi ñu am YouTube ak MC Driver. muy mhm. expliquer naan en France droit droit yi soo génnee déclaré woo ko mois. Mhm. ñàkk nga say droit. Mhm. mais am nga deuxième sens. 12 12 mois yi. soo ko ñëwee déclaré ñu jox la ko boo ko déclaré ñàkk nga définitivement say droit. bu son yi nekkoon it aussi tamit ñuy fay. waaye tu perds doo laal dara. xoolal loolu c' est dangereux loolu un artiste te bari na fa yoo xam seen daf yaa ngi jàll. moom laa wax sànq de sàgganteef bu mag daf ci am ko non daf ci daf ci am léegi euh, ñu ñu ñu tëj euh, avant euh, média yi <laughs> parce que tamit hip hop bokk na ci li ko su hip hop gaal seen bokk du moins bokk na ci li ko indi fii média si lañ bokk surtout émission rajo yi nga xam ne temps bi nga xam ne moom lañ ci toll dëgg dëgg dëgg quoi donc mënuñoo citer yu bari mënuñoo citer ñëpp mais amoon nañ fi am nañu fi place bu mag même bu fekkee léegi nag les gens n'écoutent pas souvent la rajo ndax euh, xam nga rek bon monde bi mooy doxee noonu la technologie mais média yi les télévisions la rajo et cetera ban ban ban kii lañ ci am ban responsabilité lañ am. ci côté boobu ci industrialisation. xam nga de manière générale médias yi ay moyens de propagation la. Hmm. Euh, booy xool par rapport ak ki euh, les artistes surtout au début pour nga jàll rajo sax c'est tout un problème. Hmm. ay xar xarnaani seven boo fa demee da ngay déposer sa son. Hmm. nga dem moom comité bu ko étudier. ñi valider pour mun laa teg. télé bi tamit am na télé yoo xam ne boo fa sa bu fa jaaree yow superstar. Hmm. parce que ñoom ñoo toll fa dañoo dayoo boobu. Ah, te loolu noonu dafa wàññeeku avec l' avènement de l' parce que boo xool internet day permettre ñoo xam ne amuñu moyen wala ñoo xam dañ leen ñu ñu ñu jaaree foofu. pour hmm. fël ku ci mel. benn son rek benn break def na Drake nga jël benn Nipsey Hussle mhm. damay bëgg di ko parce que tamit ak lu mu décédé yi dafa liggéey lu bëri diir bu mhm. gàtt quoi mhm. waaw internet bi may même français même fii nii boo xoolee euh, ku ci mel yi benn dib dib waay dib donte mooy doon jaay seede je me rappelle seede maa ngi koy jënde woon shop de lenn moom attiré line bu muy naan sa profil sa couverture ma laaj booy bi ne ko kan moo rappelé mën a ma diwoo mën a neex mënu ma jëndal ma jënd kii toog naa deux jours a dégg après bon j'étais après la suite mooy loolu quoi. moom dafa teel a dugg ca nag donte baas. daanaka doon na ko xam ne moom dafa teel a comprendre loolu. mais avant moom y avait king size ah. waaw king size king size ko doon def de manière kii plurielle. Mm-hmm. ñëpp la daan def fanaa ne ci événement yi. Mm-hmm. ci artiste interview et cetera et tout genre demee noonu quoi mais par rapport la promotion de l' artiste. Mm-hmm. jaay su bopp tasaare say mbir. ci internet bi. tout en sachant que télé yi baax na ce sont des médias traditionnels mais ñu am nañ limite am na fu ñu tool am na fu ñu yem parce que tool nañ jamono boo xam ne ni bu ñu seetaanee télé mm-hmm. événement soit lamb wala match de foot wala demee noonu mais ay toog di seetaan ay clip mm-hmm. rare. genre mais télé yi amoon nañ dayo boobu mooy lu mu expliqué sans sa jëlbeen bi rek. par rapport suñu la tegee suñu la tegee suñu la tegee par exemple booy xool ay RTS la moo tax ay censure amoon. waaw télé yee taxoon mais internet. sa mais RTS après il s'est rattrapé ak d'autres émissions hip hop. waaw waaw ma je je damay ñëw ci par rapport ak euh, transition bi. entre les médias traditionnel mm-hmm. ak internet. Mm-hmm. traditionnel comme les rajo yi tout dañ daa dañ la daa may doole boobu boo jaaruloon rajo jaaroo télé yow yow sa dara baaxul mais dañoo teggi loolu dañoo jéeg doon tey am di di nga yow si sa promotion di nga continuer di dem foofu noonu parce que spot yi fa lay jaar télévisé et tout ak audio yëg yi demee noonu gars ngi koy def mais internet bi tamit moo moom moo nekk en kii en dessous de tout ça. Mhm. parce que fan la jamono toll. waaw àdduna moo ko laaj. tey parce que internet bi dina permettre tey ku nekk France jënd sa produit wala mu xam la. Mhm. wéradi. waaw koo xam ne bu dul déglu rajo sénégalais Sénégal wala télé télé Sénégal. bu nekkee France dina xam sa produit États-Unis pare et cetera et cetera. Mm. keroog maa ngi gis Malick si muy publier mu ne xaw ma Philippines xaw ma Japon moo fan. âge mm. de baisse moo fa nekk artiste xaw ma lan ak lan. Mm. la moo ko mayloo c'est parce que internet la du rajo Sénégal eh, eh, kii traditionnel internet bi la. donc média yi ñoom doole boobu ñu naan joué wàññeeku na bu baax jamono jii ñu toll. Mm-hmm. parce que jamono moo demee noonu. Mm-hmm. boo xool même ci Hitler sax booy xool la moo gën a mm-hmm. moo ko gënoon a may doole. média la utilisé woon dafa teeloon a comprendre impact média. Mm-hmm. parce que dafa daan dafay kii gars teg ko ci rajo allemande yëpp et cetera ak télé yu demee noonu. Mm-hmm. loolu xewi na. jëm mm-hmm. internet moo xew. mu adapté wu ci waaw internet moo xew. donc képp koo xam ne ni bëgg nga tey say mbir dal gën a law. en plus des médias traditionnels. internet foog nga foog nga gis ko donc la communication digitale elle est très importante pour artiste bi. promotion digitale la distribution digitale la communication digitale marketing bi y' a un mais quoi y' a un mais. Oh, bien sûr mais <laughs> en fait c'est-à-dire pour rejoindre le par rapport ak li nga wax gouvernement français dafa accompagner loolu musique musiciens yi parce que dafa am benn quota bu joxe ci rajo yi foofu pour musique française bi jaar ko mhm. donc ça revient loolu de un dinañ leen publicité de deux droit yi ñuy fay aussi mu dem ci doom askan wi askan wi dem ci loolu daf loolu daf ci concernant intérieur bi si internet bi tamit loolu kenn mënu ko néew aussi léegi moom fi mu la mën a yóbbu euh, mais beneen média bi euh, mënu la ko sax yóbbu quoi mais aussi tamit internet noonu lay naxee yi certains artistes. parce que di nga am benn nombre de followers benn like bi. mais tu t'arrives même pas organiser un concert su bëgg gaale moom ñaar ñetti nit. loolu tamit ak sponsoring yeeg problème mooy problème mooy internet bi même bu dee affaire de concert parce que bu leen fàtte ni business model bi concert c'est une partie de ça. non non dafa ak vente. non ne réalité y a bokkul quoi c'est-à-dire mhm. yow. liñ mën a jàngal ci followers da am benn fan base ci réseaux sociaux yi. Mm-hmm. c'est-à-dire la fan base la mais fan base boo xam ne tamit sur le terrain pare wuñu pour ñëw accompagner la. foofu laay waxee parce tamit mm-hmm. dafa am loo xam ne ko accepté artiste bi à tout moment mooy li ma la wax sànq aspect bii mën na jaay via CD produit mën na jaay côté streaming bi comprendre nga de même que nombre de vues ainsi yëpp ay lu mu mën a gagné xaalis la. mais dafa xam ne tamit daf ko am ak CNM lu mu war a lu mu leen parce que tamit di nga am benn fan bés boo xam ni yow yow ñu seetaan la show lañ gën a yàkkam di nga ñu déglu. non a commencé rey. amul perte. Hmm. parce que en tant qu'artiste da war a dafa am lu loo xam ne yow si seen nga ko mën a wane. mais Bamba mais Bamba loolu noonu ça dépend par exemple yow mën nga prôné léegi loolu mu ñëw en deuxième lieu xam nga tey soo amee ay followers yu bëri fanbase bu rëy ci internet tey in sponsor bu ñuy xool du ñu ñëw sa concert dañuy xool par rapport say sat ci internet. loolu lu ma nangu xaar ma ñëw xaar ma ñëw rek léegi ñoom tey sponsor bu ñu ñëwee ñoo doole la jox la xaalis. les en ce moment mun nga ne naa def ay uh-huh. def show fii def show fël mais artiste bu fi ñaata artiste ñoo fiy toog di def show. mais foofu laay wax loolu c'est anormal. loolu baaxul ci showbiz. c'est-à-dire show yi daf war di am c'est-à-dire même pour aspect bi cest à dafay am luy nelaw ci artiste bi loo xam ne sur scène image yi après bu man pour man loolu c'est obligatoire un artiste da war di def cest à man bu ñu waxee ni la promo de ton produit du dem rajo dem télé def vidéo rek toog croiser les ay concert foofu laay waxee la parce que concert dañoo dem ba léegi bëgg a commencer rey concert yi seetlu léegi un artiste day génn un album durant toute l'année du def concert wala benn concert lay def yëpp dafay xaar dafay mm.

Euh, esprit français. jamono yi nuyu di rab. waaw ay BMJ ak affaire noonu. mais yow xanaa moom awadi boobu ci la nawee ni awadi moo ko wax. mu ne Matador fi muy jouer concert day dem ci scène bi lay public bi lay taxaw bokk di ko seetaan. dëgg la mais sax loolu dafa bokk. bu ñu rey aspect boobu loolu a foofu noonu. li dëgg la de mais xam la ñu war a wees ñun fa la ñu war a topp parce que ci loolu lañ bëgg a jëm ñun. Mhm. moo tax lii ñu daje. Mhm. yow ngay tëggal sa bopp concert. walu en fait c'est-à-dire xaar ah, dafa xam nga tey artiste tey tey su ma. Ah, boo xoolee tournée boutique dem fii euh, Ziguinchor. yóbbu foofu boppam de Pepsi moo ko yóbbu. Mhm. fa la ñu war a toll quoi kon. ah non non non foofu yaa amee. moi je suis pas d'accord Pepsi sax di organiser. mais bien sûr c'est pas normal mais loolu mooy industrie. non non non non non non non non non non non non non non non non non léegi c'est que ay produits yoo xam ne dañu war a ñëw fee rek. am licence genre non mais si. non non du ma réguler ma réguler en li li li Bamba di wax je crois que yéen a bokk li ngeen di wax parce que Bamba il a accepté sànq label yi ci boppam di jël artiste bi di ko organiser di liggéey moom loolu c'est tout à fait possible bu fekkee artiste dafa valoriser boppam. en fait dafa am un échelle bu am la artistique mooy valoriser boppam di organiser boppam bu eggee benn état bi nag am na fu muy toll bu gisee contrat bu ëpp ko moom lu muy organiser mu def ko on a vu non wax nga ko dans ce sens. mais aussi dafa nekk Pepsi uh-huh. Pepsi loolu bokkul ci ay prérogatives la muy organiser ay concert loolu il faut nangu ko. non en tant que produit. bu soxla bu soxla programme de marketing. c'est tout à fait possible ay ah, Tamsir euh, ñu bàyyi waaye la. bëgg yëf yi changé. Pepsi du loolu. mais non non mais. mu toll foo xam ne dañ koy tëgg dañ koy fay cachet. waaw dañ koy fay mais dans ce cas ah. Pepsi warul organiser. mooy organiser dafa war a gis kenn koo xam c'est dans son domaine mu fay ko. waaw mais loolu ci organisation bi lay dugg en fait loolu la ñu wax. non mais organisation lu ko lal financement bi moo lal organisation génne financement kan moo organisé concert boobu. financement kan moo organisé concert boobu. ñoom c'est Pepsi xam nga yow. loolu ay artistes en fait Pepsi bu demee ba créé ba créé compilation. tu me suis pas nuance xam nga lu mel y a nuance. ku mettre en place comme par exemple si ju fii nii euh, émission bi les parties techniques techniciens et cetera et ak ñoo xam ne peut-être am na keneen ku nekk ci ginnaaw moo financé loolu yëpp on foofu lañ toll loolu laal bëgg par exemple tey en tout cas keroog rek ci room bi ñu doon def ñu ko doon annoncé yi ministre bi mu ngi ci ah, mu ngi en phase loolu nga xam ni pour être organisateur da am licence cest à bu ñu bëggee fi dox mhm. kii marque la moom boisson lam li muy jaay mhm. warul ñëw suñu domaine il a les moyens mënul concurrencer kenn ci ñun. daal di jël ay artistes fay leen tëgg leen spectacle loolu. doxul business mais mais loolu tamit loolu tamit. loolu tamit mais mais loolu tamit loolu tamit connaissant le Sénégal. connaissant le Sénégal. li ngay wax ni dégg naa ko keroog maa ngi toog benn grand bu kii ci culture urbaine connaissant le Sénégal oh. buñ ko defee tamit. est que du am. est suba ñu bëgg a tëgg concert duñ leen ko mën a may sous prétexte que. amuñu licence. Hmm. parce que xam nañ Sénégal. mais gars yi déjà déjà déjà foofu laay waxee quoi. parce que moo gis terminé récemment. non non foofu quoi la la bëgg a wax. mais attends loolu en France da ngay jàng. loolu dëgg la am sa licence. tu paies des taxes loolu dëgg la mais sànq da ngeen da ngeen xam nga on parlait de business. Hmm. après ngeen dem ci aspect yow da nga nekk ci aspect philo artistique bi quoi. Mhm. maanaam artiste soxla na. non non business laay wax ba tey. waaw ok ok <laughs> mais mais artiste bi su gisee ni loolu c'est pas rentable par rapport à ce qu'il fait parce que mhm. des fois mooy la question qui revient oui le business mais à quel prix wala jusqu'où ndax artiste boo xam ne gis na ni moom. Mhm. am na ay followers ci internet bi. mu gis ni moom su tëggul concert. defu ko dara ndax artiste bi tey ndax am na droit toog ne neexee du ma tëgg concert. parce que moom parce que moom il fait des chiffres donc xam nga sànq ne sànq da ah, ne am na artiste bi lu mu amal public am mm-hmm. mais lu mu ko amee noonu c'est pas c'est pas en terme de c'est pas pécunier waaw c'est maanaam yow li ngay wax ni c'est c'est c'est hip hop quoi maanaam wala si nga toog yow ak sa public am benn benn kii bi ngeen relation la waaw parce que tamit boo xoolee ak corona mm-hmm. ak ak ak covid bi dafa ànd yeneen forme de concert mm-hmm. les gens font des concerts concerts digitaux xam nga dañuy nekk nii seen seen seen kii organiser concert on l'a vu avec le corona. fii fii tey avec Youssou Ndour loolu mën na def ay chiffres quoi. il suffit que ça va faire des monde bi moo nekk di changer. et je dis pas que dañoo war a rey lële. parce que loolu moom man man dem concert neex na ma. mais à à côté tam di nga gis ay artistes yoo xam ne li ngay wax noonu mënal nañ ko seen public. toog ñoom def show bu nice mais artistes yooyu ba tey tey ñu ngi kii. il perd à. en fait ça se ça se comprend ça se comprend balaa balaa ñuy balaa ñuy. bu bu tëj ci débat dañuy waxtaan. on parle du business dañuy waxtaan. c'est que bu leen focus business bi ci digital donc la. Ah. li ma bëgg a wax ah, mooy. dëgg la dëgg la li ma bëgg a wax mooy. Mm-hmm. bu ñu fàtte. focus ci loolu non non en fait ça def li ma bëggee ñëw. waaw si si aywa nañu jàpp ni artiste bi quand il sort un produit bay def la promo ni mu amee obligation def ko ci réseaux sociaux yi. Mm-hmm. ni mu amee obligation def ko ci télé yi ci rajo mais loolu amee obligation def ay série de concept. Mm-hmm. maintenant dëkk bu nekk ay réalité am fii amuñu ay promoteur non non non loolu obligation wala option maanaam obligation wala obligation wala option. option la obligation wala option. su ma nee obligation c'est-à-dire ça a toujours été comme ça un parce que je m'explique. en fait c'est une Sénégal ça a toujours été comme ça. loolu la war a man dama nangu benn affaire. mais internet yàggu man sama artiste. man dama bëgg sama artiste tegal ma concert. man nangu naa ko léegi léegi léegi léegi. y' a deux choses <laughs> artiste bi nekk studio. artiste bi nekk studio. Ah. ingénieur ingénieur di ko assister. Mm. DA bi di ko assister. Mm. yaa a une différence ak. léegi léegi ñu déglu woon Tamsir Tamsir Bamba Bamba. damay daaneel damay daaneel foofu damay daaneel. y a une grande différence. dëgg la dëgg la maintenant yow su fekkee ne da ngay dund musique. dëgg la ni ngay dégloo. Ah. ci produire noonu ngay bëggee tamit des fois. gis ko en sincèrement man concert nag concert dama ne concert business mën na faam. waaw ah, loolu dëgg la eh, eh. concert c'est-à-dire y a ci événement lañ la mën a accompagner. Ah, loolu dëgg la donc tournée. ci lañ la mën a accompagner. et ces tournées là. Mhm. ces tournées là. Mhm. si ces dates sont bien enregistrées. Mhm. dafa am ay royalties bu ñu lay verser waat fayaat la ko yow. dëgg la et may waxee. ma bii bi ngay jaay am may la may la ma yàgg tam en fait li ma bëggoon li ma bëggoon ñu comprendre ko mooy. li Bamba di wax li ngeen di wax benn la donc je pas entrer dans les par rapport ak yi peut-être on aura le temps beneen yoon ñu gën a détaillé ci loolu. waaw si dama koy tëj dama koy tëj parce que émission ñi ngi jeexal temps bi ñu donc ma def dernier tour de table rek ku ci nekk xam nga proposer solution pas à long terme juste à court terme pour permettre ñi nga xam ne ñoo nekk ci culture urbaine te ñu ñuy déglu ce sont des acteurs ñi ay artistes lañ ñi ay mélomanes lañ ñi ay animateurs lañ ñi euh, ay beatmaker lañ ñi ay manager ci biir lañ ñi juste dañuy déglu kese yam si ah ñeneen ñi ay chroniqueur lañ yan solution la ñu mën a proposer ba ñu tendre vers ci loolu wala bu fekkee ñu ngi ci yoon bi nan lañ gën a mën a avancer pour cadence bi gën a yokk waaw ah, man mooy li ma wax tout temps acteurs yi moom wax dëgg fa yàlla grand grand big ah, ñu ngi def lu ñu mën mm-hmm. c'est vrai que manquement yi am na mais pour man li mën a booster à ce ñun ñu fàtt ko en tant que mooy li ma wax nos autorités il faut ñu régulariser ñoom ñoo ñu ci a jàppale. Mm-hmm. parce que tey xoolal bëri na fi ay jeunes yuy liggéey am seen xaalis ñëw def ko ubbee studio d'enregistrement jënd matériel teg ko fa di fay location fay facture courant fay sax ña fay compte ña fay liggéey mm-hmm. tey gis nga ñii tamit jënd seen matériel teg affaire yi nekk ci di investir. Mm-hmm. gars yi ngi li ñuy wax tant que ñu koy récupérer à temps. Mm-hmm. affaire bi moom parce que tey mooy ni ma koy waxee fii ak internet bi am na ci ay booy yu bëri yu am ñoo xam ne ay manager lañu. Mm-hmm. am ñoo xam ni community management xam nañ ci dara. ainsi de suite ainsi de suite et ñooñu dem def seen forme am seen diplôme pour ñu mën a ñëw partager ak ñoom seen expérience yow il faut nga fay leen. genre mm-hmm. di baax may waxee. donc sur ce côté man gars yi ñu ngi góorgóorlu def lu nekk. maintenant nag ñun ñoo mën a gën a sur la table en plus réorganiser waat. nguur gi tamit dem vers moom parce que loolu moo tey poussé tey ba BGA changé dem SODAV esa dem je me dis que ni pour man gëm naa ni dina changer parce que pas mal de choses commence gars yi xoj nañ nguur yi ba am na yu bëri commencé changer par rapport ak côté statut euh, artiste beeg affaire yooyu jàppal lu mu <laughs> mhm. na na xam lu mu bëgg a def mhm. ak lan la ci jublu mhm. lan la mooy objectif bi quoi ba pare euh, lu may def tamit na na na identifier sa cible. Mhm. bu identifier sa cible ba pare na xam lu muy def ba cible mu jot ci muy jot ci. <laughs> ci par rapport ak contexte euh, précarité yi ñu nekkee fii Sénégal ak tamit euh, la. taw fexe ba affaire yi gën a tas gën a kii parce que mhm. tamit loolu la ñu am quand on de hip hop on parle de son loolu mooy élément déclencheur bi mhm. mooy noyau bi son yooyu noonu la gars yi di def loo xam ne nii dina neex nit ñi quoi wax ñu nga def comme faux débat bu dëgër bu nangam na nga def loo xam day neex nit ñi. Mm-hmm. ak tam yow yaa xam ba cible la mooy sa cible. loolu mm-hmm. identifié ko pour mun pour nga mën a gis waaw am sa orientation musicale quoi. am si yow wala da ngay boole ak ñaari. en tant que parce que mélomane yi tamit ñoom dañoo. ay acteurs lañ ci am nañ waa waa melo leen di dal xaaral pare <laughs> grand bi nee na grand bi nee na sànq am sa récupérer loolu à temps. Mm-hmm. loolu loolu la quoi gis nga business on parle de business fii nekkuñ di wax affaire bi business dañuy wax donc il faut nga am comme gars yi dañuy wax si marketing digital rek il faut nga am stratégie smart xam spécifique mesurable. atteignable ré nu non non lu réaliste. ak temporel à temps quoi. il faut affaire bi gis nga tant que nekkuñ ci logique boobu noonu nga ne tu te tu te poses des objectifs may génnee album te lii laa ci bëgg lii laa et puis objectif yooyu nga xam ne am na équipe. bu la ko du yow yaa ko mën a def. tant que nekkuñu ci logique boobu parce que loolu loolu mooy business. business damay business mais ñaata nit nga fi jox ay vingt millions ñu ils se sont laa laagal ñu ñëw toogaat. zéro franc yoratuñ ko. waaw mais business dañ koy jàng. parce que tam bu bu ñu nee street knowledge ci la bokk. Mhm. mais xam-xam xam-xam la ñu wax quoi c'est pas xam-xam bi du jàng histoire Tupac ñëw toog di ñu sonal. Mhm. Tupac moo nekkoon du loolu affaire bi xam yoon bi la. Mhm. te yoon bi nag pour nga xam ko il faut dem jàngi. quand di dit jàng nag nekkuñu école grand wax na ko YouTube a ngi fi leneen a ngi fi xam nga beneen bi tamit mooy mélomane yi il faut ça ne sert à rien tamit de se vanter mélomane mélomane mais des fois dafa am loo xam ne loolu sax du du mélomane mais c'est le loolu waxoon naa ko benn émission sénégalais amul culture jënd pour li nga bëgg. sénégalais il faut ñu cultiver ci moom jënd. man sax bu ma soxla woon dara nii yow nga koy job damay ñëw sama gars yi damay ne lii doo ma si jàppale. parce que ah non Bouchra xam naa ko da sama gars yi da koy jox il faut ñu cultiver loolu si ñun mélomane bi bu chaque jour dama koy wax lu tax ñun ñii nga xam ne dañoo bëgg ñun ko on dit ñun ñooy orthodoxe yi ñun ñoo bëgg rab bu dëgër bi mais rab bu dëgër bi lan moo tax gars yi di ko daw naan fayul c'est parce que ñun ñii bëgg ko sax jaraluñu dara gars yi bu ñu woote woon léegi ne kaa leen ñu teg fii concert ñun ñii di nga xam ne ñoo naan wooy bu dëgër bi suñ gaale la ñuy toog naan ah bàyyi tey dama sonn quoi duñ dem buñ defoon ay affaire ci net bi ne dem leen jënd ko stream duñ dem xam naa ay album yoo xam ne dañuy nekk ci studio yi bu yi ñuy wax rab bu dëgër fa lay nekk ci tiroir yi da nga ko fay teg pour gars yi ñëw jënd te boo leen rombantu ba ñu naan maa ngi mu ngi nice xam nga mais duñ duñ jënd quoi il faut ñun tamit ñu am culture boobu ñun ñëpp la nag rappeur bi du fay beatmaker bi beatmaker bi moom day day day sàcc ay logiciel xam nga après nag chaîne boobu noonu buy dem <laughs> non loolu loolu après nga pare yow yow miy fayul beatmaker beatmaker bi sàcc ay logiciel yow nga pare gaayan bi tam téléchargé la. téléchargé après ngay casse téléchargé après ngay casse loolu noonu te yow am na leneen leneen quoi donc il faut ñun ñëpp affaire bi ñun ñëpp ñun ñëpp ça nous interpelle ñun ñun ñëpp quoi. waaw ah, man man. la am. en tout cas euh, c' était vraiment une excellente émission par rapport bon xaw kan waaye man kontaan naa quoi di remercier encore euh, grand Bamba bu jéggi moom ci pionnier yi la bokk quoi xam naa ne doonte moom maloo après foog mu <laughs> euh, tamit dinañ ko fi soxlawaat ci yeneen i thèmes incha yoo xam ne dinañ ko développer qui en rapport avec les cultures urbaines man sama solution lenn kese laay proposer mooy nañuy nangulante ki nekk ci lii ak ki nekk ci la l'essentiel ku nekk na nangul c'est pour le bien du hip-hop. il faut un peu de tout pour faire un monde. mais le débat ça fait vivre le hip-hop. waaw bien sûr. surtout le débat ça fait vivre le hip nangu artistes yi aussi nañuy nangu. c'est-à-dire yow defal produit. Mm. yaa tu as la liberté de sortir un produit laisse les autres la liberté d'écouter et d'apprécier. ñun dañuy déglu. Mm. amuñu ci xaalis. di wutuwuñ ci dara mais bu ñu dégloo wax dëgg yàlla suñu làmmiñ ñoo ko moom suñu loxo ñoo ko moom suñu clavier la ñuy def bind si nag bi neexul bu neexul neex na ñu ne neex na su amee lu ci neexul ñu ne ko raboo dafa war a ñoo tey suñu mbir la donc ñu nangul ñu ko ku nekk na nangul moroomam on apprécie ce que vous faites yàlla na lépp mat incha allah donc di leen jox beneen rendez-vous ci For The Culture bu gën a tànk tàng jaajëf <laughs>